maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi teewlu di setaan di wax que ne ginnaaw bi nga xamante ne Macky Sall fexe na wote ay loi yoo xam ne day delloo ginnaaw suñu démocratie yu demee ni que restreindre li ñuy woowee la liberté des Sénégalais ci réseau yi Macky Sall voté lu na ab loi buy wax ne képp koo xam ne yaa ngi manifester di résister terroriste nga Macky Sall jël na lépp loo xamante ne nii mooy matuwaay pour que moom fii si suñu Sénégal bi ñu nekk benn doomu aadama du fi sëqat sooy wax sax sa waa kër ak say mbokk dañ naan la moytul Macky Sall ginnaaw bi mu jëlee suñu ay forces de défense et de sécurité renforcer leen ci ay matériel de répression te bàyyi dëkk bi nekk ci ay situation yu alarmante ci côté sécuritaire mais moom ay jumtukaay pour réprimer les citoyens moom la dem outil recruter ay nit yokk leen ci force de sécurité et de défense ñu ne déet na waay mu recruter ay nerveux ñu sol seen ay marron beige yore seen ay pick-up yore seen ay jaas yi di dugg ci biir nit ñi di rey di xoqatal di dóor te dara du leen ci fekk ginnaaw bi nga xamante ne ci kaw ndoddam quatorze morts ni ki le mars deux mille vingt et si kawam ginnaaw bi loolu yëpp xewee Macky nag moom def ne Sénégal kenn du am jàmm man du ma du ma leen may ngeen am seen jàmm parce que dama bëgg a jàllale sama troisième mandat dama bugg jàllale sama troisième candidature loolu moo ko indi moom ci ay calculam moom mooy tànn kan lay àndal ci ay élection parce que boo ko seetee ba seet ko la vérité mooy que ne lii yëpp. manœuvre yi yëpp ñaari mbir ko wund bokk ci élection yi di ñëw ba pare tànn ñu war a bokk ak moom ci élection yi di ñëw loolu lañu ne Macky nag du fi amee doy na sëkk xam nga wax ji jarul muy gudd wax ji dafa simple te waxu ne li ñu gis mu xew ñaari yoon ci kaw benn citoyen sénégalais bu doon dem tribunal loolu la wax ne dootuñu nangu mu xewaat li fi xewoon du fi xewaat li fi xewoon du fi xewaat le 30 incha allahu rabbi sénégalais yëpp lañ jël témoin tous ceux qui sont épris de démocratie seetaan nañ benn yoon seetaan nañ benn yoon dootuñ ko saraanaat laissez les sénégalais ñu vaquer à leurs occupations Macky Sall bàyyil Ousmane Sonko mu dem wuy ji ni ko Mame Mbaye Niang di defee téye Ousmane Sonko bunkeriser koñam tere business bi dox tere nit ñi circuler élèves yi jàngiwuñu école yi tëj mooy ñu kenn sëqatul nit ñi feebar ngeen topp nit ñi di gazé ñu gis benn police boo xam ne ni ñu ànd benn brutalité bu amul précédent on a vu tous les vidéos un flic bu sol ay tunique mais ce flic là di toj oto jàmbur yi di dóor nit ñi di xokkatal nit ñi di rey nit ñi mel ne Sénégal pays boo xamante ne la pays lu kenn xamul lan la pays bu ñu ndëpp il faut que loolu arrêté dañ ne la Macky le 30 incha allah li ngeen def ñaari fan yi nii ba weesu du am te bu amee vous aurez en face tous les Sénégalais y a marre loolu la ñu bëggoon wax ci kàddu yi njëkk di jox taskatu xibaar yi ngeen euh, ñëw ci question yi jërë ngeen jëf.